et je suis le fils aîné de mon père. Comment pourrais-je être un patron hein? Avec un sang royal. Comment pourrais-je on de moi et la a un brûler ma maison ne me fera pas reculer les bandes de son pas pour la dignité pour l'amour Pour l'amour de son peuple il faut indi ko waxutal ne dañuy perte seen temps am nañu doon appel ragal mais doon ko mënoo nekk sa premier pour sa di nekk ragal sa baay di taawu pour Saloum nga ñëw taawu baay pour Saloum Fodé moom mu jëndee pour Saloum Sénégal day yàq der. question juge bi ne ko waa yow nee na da ngay moom sa guddi googu yegg yegg mujj ba nga yegg ci ma ay ay yoon yoon yoon yoon yoon mais bu mujj bi benn docteur moo ko yóbbu ba c'était nekk mënu ku nekk benn mbir miñ denc boobu ba léegi buñ ko xoolee teg fekk def testam mu génnee lii ñu xoolee mu génne lii muy benn ah sa la bu ñu xoolee du moom ñu ne di demal xam nga dayoo ko de loo xam ne c'est scientifique te bu ko neexoon mu ne nañ dem Allemagne bu ngeen bëggee mu defee ko Allemagne laa ko a wóor wala nañ dem Paris yi defee ko foofu wala nañ dem New York wala nañ dem Tunis wala Casablanca kon ñun ñu dem ñu ngi def ko amul problème état bi dana génne ay millions. jël ko bii avion jox ko ànd ak ay benn ànd dem def moo gën a xam lu tax mu daw nañ bàyyi nag ponkal def li mu def ba pare ay ponkal ñàkk jom di wër télé yi di sal rek naan deful dara waaye seen seen ba moom moo def carrément de parce que loolu si ne koy wax waaye ku def nga li nga def waaye bu dee woon nangu naa tontu ci li ñu ma laaj leeral la juge ba dem naa kat waaye dama dama raay sama ginnaaw Ousmane moo waxoon fii mu ne ñaari xale jigéen ñoo may maase ku ci nekk ñaari mooy ñeent mais quatre mais mosuma sumi suma tubéy waaw fu tubéy sumi ko wul slip jógewu fa waaw tooy tooy fu muy jóge bay tooyal ay pot lu baax lu gën a garaaw

Il supposait préméditer la répétition de l'infraction en affichant donc une impatience à retrouver son supposé coup. je voudrais savoir, est-ce que euh, euh, la préméditation euh, en, l'espèce ne constituerait pas donc un consentement et entraînant directement l'infraction de la procédure Vous avez fait... Je suis Ibrahim Khalid d'Afrique. Hein Ibrahim Khalid d'Afrique. Oui, vous avez fait le droit à l'université Malheureusement. Je qui n'a pas de spécialité, qui ne s'est pas spécialisé en droit, il doit faire attention. Vous savez, qu'est-ce que sans consentement, répétitif, ou bien vous avez oublié ça C'est à moi de poser des questions. Oui, demandez, est-ce qu'on a des questions de un viol unique un seul jour Pourquoi les gens sont malhonnêtes